طاب سفر الخراج فيا ولي من زادها الفجار إلى الجنان العمر لن وجارا طيب لي من زهدها الفجار إلى الجنان العمر لن وجارا إن ابن عبد الله قد لم يرد في الخلق مدى ولا فيهم يرد براعة المختار في الأخلاق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 xalif général de Mouride yàlla na fi gën a yàgg yàlla na gën a wér ci barke Serigne Touba. mu jox ndigal Serigne Mouhamadou Abdoulahi Mbacke moom Serigne Moustapha moom Serigne Bachirou mu baaxoo taxawee julli korité fii ci Touba daarul Minan nu teewee ko ren jii yàlla dogal muy euh, ñaari fan ci weeru mai di benn fan ci weeru korité atum 2022 nuy sant sunu borom bu baax ci teewe gi ñu ko teewe di ñaan itam teewaat ko déwén ci barke Serigne Touba. julli gi nag ni ko baaxoo defee xam ngeen ne saa yu ñëwee Serigne Moudou Abdoulahi ci ndigalul Serigne bi bu génnee dana fi fekk mbooloo mu bari ak mbooloo mu ko fekk si bu waxtu wi jotee rek nag ñu ànd julli julli gi ni mu ko baaxoo defee. mbooloo mi nga xam ne teew nañu fi nag ràññ nañu fi mbooloo mu baree bari ñoo xam ne lépp du neex a lim waaye nu lim ci rek ay boppi délégation wane ne rek mbooloo teew na fi.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 alhamdulilah rabbil aalamiin arrahmaani arrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad daalliin bismillaahi arrahmaani arrahiim allaahu akbar allaahu akbar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

aleykum assalaamu aleykum taala wa barakaatuhu ñu nuyu bokk julli yi fi daje yépp di fi kilifa yi kilifa yi diine yi fi teew fu ñu mën a bàyyi ko di leen nuyu di leen ndokkeel ci bis bi di ci ndokkeel suñu bopp di ci ndokkeel bépp jullit ñëpp ndax yàlla dogal na tey lépp ci jullit àdduna bi ñoo ko bokk ñoo bokk defandoo ci fànk ak soow yëpp waaw loolu ak la koo xam ne jagle suñu boroom la nañ ci sant bu baax a baax tey ñaan yàgg koo fekkee suñu borom nangul weer wii ñu nu génn li ci li ñu ci jéem ak li ñu ciy def lépp am ci yéene te defoon lépp na suñu borom nangul la ko te ful ko te def ko ay ay ngëneel ñu ngi ko déggee ndax yàlla du wóote ab dig yàlla na ko yàlla nangu te te njàgg ko fekke suñu ci yërmandeem ak ndimbalam mu kàttananu ba lu nu yéene ci lu baax ñu mën koo def ñaan suñ kilifa diine yi nekk suñu kanam ci te ci jiitu Cheikh Mawal Mountakha mi xalifa général des mourides yàlla yàggal yàggal yàggal leen fi lool te dëgëral seen seen seen biir ak seen biti yàggal seen taxawaay bàyyi leen suñu kanam ba liggéey yii ñu àndi ko liggéeyal liggéeyal islaam rek suñu borom kàttanal ko ba lépp ba ba ba naan leen ba àggale ko ndax yàlla man na lépp yal na ko yàlla def muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daanaka day wax wax ji du jar guddal ndax gannaaw ndigal ak tere moom fii ci fii ci yoonu mu de fenn rek lay bàyyeekoo te dana fa bàyyeekoo dañuy bokk déglu ndigal rek daa tolloog ay jullit fu ñuy daje wala ñoo teqale ko war a war a dënkante war a ñaanante dénk dénk li gën ci li di dénk morom bu mooy ragal yàlla ragal yàlla ci lépp rek waaye yàlla moom lu jafe lu nag ragal yàlla mën na ko lijjanti lu lu lu lu lu natt mën a mën a bàyyeekoo buñ ko buñ jàkkaarloom ci ragal yàlla rek yàlla mën na ko teggi te te te adduna bi jafe na lool jafe jafe bari na xat-xat yi bëri na yëngu-yëngu yi bëri na te lépp ci suñu borom rekk la bàyyeekoo lii lii natt boo xam ne nag suñu borom bérélu na ko noonu donc ñun jullit ñi àdduna bépp la ko boole la la ci la gën rek mooy ñu ñu ñu wute nañ koy dékkoore ñu wute ca ndax nañ nañ wutee ci ci ci ci gëm yàlla ak topp ko rek dañu war a ci dékku teg-tegi suñu borom te lii yëpp ay teg-tegi suñu borom rekk la man loolu lay loolu muñ tey sant te góorgóorlu ci ndigal yi ji ko jëfe te yàlla tax di bàyyi tere te yàlla te yàlla te yàlla tax ñaan ñaan suñu borom nag waaye def def yërmande ci mboolem bindeef yi ndax yërmande yàlla yaatu na daj na fépp yal yàlla yërëm yërëm yërëm bindeef yi lu baax li ñuy defal suñu borom rek su borom nangul na ko te te te tuful ko te taas na ci barke bi dañ ko ñaan ci dara yonente bi aleyhi ko ñaan ci barke bi sëñ Tuubaa jërë ngeen na ko fekkee tey déwén déwén asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tàllal leen wax amin amin amin amiin xamee ne waxtu wi jot na nag sëriñ bi génn ànd ak mbooloo mi daal di taxawal ñaari rakk yi def xutba bi ci arab bi mu noppee nag am na ay kàddu yoo xam ne tënk na ko ci wolof tënk ko ci ay ay ay ay ay ay ay ay tomb yu wuute yoo xam ne bi mu nuyoo mbooloo bokki bokki jullit yi nga xam ne ñoo fi teew mu nuyu leen siyaare leen ndokkeel leen ci bés bi sant nag sunu borom tabaraka wa taala ci julleendoo bi nga xam ne li ëpp ci réew mi bokk nañ ko julli mu sant ci yàlla lool di ñaan itam loolu jëm kanam gannaaw loolu itam mu ñaanal bu baax kilifa yi rawatina Serigne Mountakha sunu borom gën koo dëgëral gën ko fee yàggal gën koo wéral àggaleel ko yéeneem ji nga xam ne yéene na ko ci lislaam loolu gannaaw loolu itam mu daal di xam ne rek ne ndigal ak tere moom fenn lay jóge kon nun nan ànd rek déglu ndigal waaye nag dénkante mun te ñàkk ci ay jullit yu teew tax na nag mu laa biire bokk yi ci tom bu am solo te moo di del ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala lépp nu delloo ko ci moom xam ne nattu yàlla yàllaa koy tegab jullit waaye nag ni jullit yi wootee noonu la ñu war a wootee itam ci li nga xam ne bokkuñu gëm yàlla ñoom ñëpp noonu lañu ñu war a wootee ci dékku nattu yi te ña xam ne sunu borom lu mu def rek moom mooy li ko gënal kàddu yooyu la sëñ Moudou Abdoulaye tënk ci ay kàddoom nu ànd diglu kàddu yi nga xam ne bàyyi ko na ci sëriñ Moudou Abdoulaye Mbacke moom sëñ Moustapha am sëñ Bachirou imaam yi jumaa ji iwa jamawnin amirin wa naayin wa tooriyal kasu ma al ahyaani fi zikri baaqin birda ahyaani radiitu anhu wa waraajin anni bi xayri sowdin zatrain minni wa baada wa ala alihi wa sahbihi wa jalaaji abyaata saarifatan kullama lam tadooli ila xayri abadan amin ya rabbal alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa aalihi wa sahbihi wa basiro bima raxabatu bihi mawlida wa sallallahu taala alayhi wa sallama rabiul awwal